jumaa ji mag ñi dañ daan wax ni ci ben plate lañ ko tek ci waxtaan ak ben architecte dañ ma jumaa ji fiñ ko tek ben xeer la bo xam day mag xeer wi nak yëngutu gi am ci biir suuf mënu ko percer motax tax jumaa ju jëkk ji doo ci gis ab fet fet parce que yooxu gi da koy wër parce que suufu tuubaa dafa mel kew bo gaseeb ten bo genn suuf ci boko ko moxoñee non muy def mun ma suufu subaa non la mel waye fi juma ji ne aw xeer la wo xamanteni ni ni bi am ci bir suuf si mun munta perse xero daf koy wër ci loolu lañ teg juma ji nga gis ni loolu man delo wat ci dekk bi dekk tawhid la li tax njabot gi man fene nga xamanteni ni doomu adama ci bopam aw dundinam dafa am lu mu laaj sëñ bi daa nuk ten waaye teen bi da gis mu dellowaat ko ci suñu borom asqaytanaa xayra maa in yartawi bañ na ko ba ayib alxuraan la jëfandikoo fajarnal arda uyuunan loolu daf daf koy màndargaal nga gis ni itam ni li mënta ñàkk te mooy sécurité doomu aadama faw mu amuk dal door mën a dund wàccax xarimana man yooyu da gis ci ci biir Matlabul Fawzayni mu cay feeñ nga gis ni nit mënta ñàkk lu mu yëngutu lo xamni daf koy may dara nga gis mu ci ñaan ci xeeti wërseuk ci mboolem jihad yi yoy yep daf koy daf koy mandargal nga gis ni itam nit dekk bi mënta ñak xam-xam ndax aw nit ku leen bëgg tabax ci xam-xam rek nga leen tabax mu ñaan borom mu doon dekk xam-xam wajalu da'ban mawdi alf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 te sëñ bi ne leen wa man yattaqi laa yaj'al lahu makhrajan wa yarsuq min haysu laa yahtasib loolu buntu la istaghfiru rabbakum innahu kaana xafaara loolu buntu la yeneen na nga cee ñëw wa amur ahlaka bi salaat wastabir alayha laa nasaluka risqan nahnu narsuq loolu buntu la wa man yatawakkal ala llahi fa huwa hasbuhu loolu buntu la wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu buntu la yoy yep sëñ bi da ci tagat mag ñi ba nga xam dañ ko dund matérialiser ko taxaw yëngutu ja mu jangal le nak banen bo xamanteni ni ne xey tud da amul ñari ndax da leena a lal abder jël kamil arxuraan tek ca jël gubu tek gubu dugub tek ca jël ab gop tek ca ni leen julli jang arxuraan lek ni ciow dem liggéeyi mooy tëdd amu fi <laughs> yoy yep moy daf leen di orienter di leen xamal motax bu fekkente ni danoo jog di wuy si ab wooteem war na ñoo xam ki ñuy wuy ji ko mu doon mata bàyyi xel la mooy ki may woo kan la ci lan la may woo bu ko defee bu ma dikkee xam nan laa fi war a nekk waaye da ngay gis ni ñàkk guñ ko ñàkk dégg ñàkk guñ ko ñàkk bàyyi xel tax na léeg-léeg woote bi dana xumb lool waaye da ngay jawlal sa bat ci biir nga gis ni ben benn ñoo ci dégg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 dal dañu bëggoon fun fanan dañu ñëw ba fi mu guddi mun leen ah kër gi de kër yalla la mën ngeen fe fanan waye reer amut ñom ñu genn waxtaan bi waxtaan bam ma ngi dox di ñëw mu seen mbaam bi waxtaané ñu ni ginnaaw ku ne yor na dara na ku ne def dara ñu jox ko señ bi ni xam ngeen lu ko may loola moy waxtu suñ borom boobu mu doon dundal fa bayyi won timis je di wëri mbam mi timis dana ko raw te mbam ma du feñ te jëg je buñ fa jaaré duñ ko fekk loolu la sampé dëkk bi motax tax nun ñi nga xamanteni ni nun la yalla dogal nu doon ak njabotam doon ko tuddo may ab mourid la disu ko wax da ngay def jëfine wo xamanteni ku la gis dana xam ne yow mi yarub seigne touba na ci yow ablay lo noddu kat la daaru xuddoos la newoon daa noddu seigne touba da demon ci benen dekk doon faw yaxantu ji am ci ñooña ño xamanteni dañ ñu ko léegi dañ ñu yobbu ci seigne touba ñu jëbblu ji mu ànd ak ñoo ñew ci seigne bi bi mu ñëwee ci seigne bi seigne bi da ko laaj ni ko ablay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 ak nooy waxee ak nooy jëflanteel mm-hmm. nga xam ni sa sa jëmm dafay dafay wëlbati ay nit mm-hmm. daf leen di jubbantee ndax sa melokaat waaye bari na fi mu toll nii taraak yu ñuy sànni yoon wi te sunuy jikko ak sunuy comportement moo moo ko waral waaye sëñ bi moom yëbuwut yëpp lu wut koo xam-xam ni yëpp lu wut ku ko yab nag ci nun nga jaare mm-hmm. nun noonu yi nag noo war a fatt bunt bi moo tax lii nga xamante ne ni moom la sëñ mun taxaw woote lu bare bari mo ci nek ci ay bindu yu ñu war a ndax ni ñu ko ande bu ñu sétlo ci yoon wi li suñu add neew neew néew mosunoo gis événement bu melni bo xam ni la ñu lëkkale kon da lay xamni bu jàllee bu tàggootee bakkan ñu nu tàggale waaye du seytaane buñ tumal seytaane bakkan la ndax lu dul ànd wuur ñu ko def ànd rek la ñu wara def te kenn rek ku digle sun borom bam ne fa aqimu salata wa atu zakata wa atasimu billahi la jajak kon julli ak joxe asaka gënta farata ande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 تجد أنك تجد أن تجد أنك تجد أنك تجد للأمة إغازة تكفي الأزا والخمة أكد بوغ لمي والسلام عليكم ورحمة الله